Sankara lii di justice burkinabé bi nag ñu ngi joxoñ baaraam tuuma yi kooko fi nekkoon njiitu président boobee di Blaise Compaoré ñu wax leneen ci mbirum euh, Aly

yeneen foofee ci par ci semaine bi ñu génn ñu wax lekk ci ñi nga xamante ne ñooy ñett ñi nga xamante ne dañ leen a dañu faatoo lekk ginnaaw bi ñu ñàkkoo nekk ministre de la santé moom nag weddi na loolu lekk ci waa observateur muy ministre de la santé daal di weddi loolu bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar suñuy naataango observateur ci ñi nga xamante ne lekk dañoo wax ni

ñu wax leneen fële nga xamante ne nag mooy Diohine ay ndaw rek yu fas taxaw rek di xeex maaraabu baraseen foofee nag ca Diohine ay ndaw bare bare yu nekk sa village nag ñoom ñu nga xamante ne noonu la sëriñ di tëddali muy doomu euh, nag moom dañoo wax rek dafa respecté wul benn yoon ay inconvenance maanaam ci dëkkuwaayu euh, chrétien ak jullit yooyu xamante ne daal ñoom fas yéene leen ko rek jëlee ca village boobee ginnaaw gi nag moom Serigne Bara Sène mujjee na rek jéggalu waa communauté catholique bu Diohine wante it ngi woote jàmmale ak ñu gisoon ne dara yëngu-yëngu amoon na ca Diohine mu nekk nag ab village bu situé ci arrondissement Tataguine nekk ci région Fatick ci fan yi nag ñu weesu maa waa communauté ak waa communauté catholique ñoom daal jàmm mujjee na ci dox ginnaaw rek. Tataguine waxee ak ñu wax rek a leneen muy wàllu faat nag loolee nga xamante ne kii di taw loolee nag dafa daal di fay rek ca Kër Massar mu nekk nag benn sercier bu toll ci si waa Les ndaw loolee nag daf ko dóor benn porte bi del ginnaaw gi nag moom nag bi nag bi yoon rek def ndax daaw si téere bi si bi ñoom lañ jote woon nag ci nag ñu wax euh, ci wàllub euh, AstraZeneca nag euh, Danemark nag moo nekk réew bu njëkk moo xamante ne ñoom dañoo bañ nag jëfandikoo vaccin boobee waa Danemark nekk réew bu bañ a jëfandikoo vaccin AstraZeneca gannaaw lekk benn Kayor Sanké autorité sanitaire boobee nag dafa daal annoncé àllarba yi ne ngir ñu jëfandikoo benn yoon AstraZeneca gannaaw rek waa organisme de surveillance ak médicament bu IE ñoo nag ñoo découvrir lool rek xam ne daal mën nekk benn yoon ñu ànd ay vaccin ak ay Kayor Sanké.

Mouvement Saliou Mbacké nag ci la nag daal di gisee woon ak Cheikh Béthio a ji suñu moom nag dafa rek daal di fàttali ko rek ba tey kookee nga xamante ne mooy gisee mag Serigne Saliou Mbacké mu nekkoon ginnaaw toog ci xalif bi ci toll ci fukki at ak juróom ñaar nekkoon ci atum 1990 ba 2007 moom nag moo ko marqué woon loolu ginnaaw am na ñett fukki at ak ñett foofee ci Mbuur moom Sëriñ Saliou Mbacké nekkoon fi juróom-benn xalif ci Cheikh Ahmadou Bamba eh, daal fi dëgg woon rek ci ab ak juróom-ñett si weeru décembre atum 2007 ñu wax rek ci wàllu escroquerie yi si ay visa ay ñu daal di arrêté ci aéroport mu toll rek ci juróom-benn weer yoo xamante ne هو غلك بدي فيني خمت نموية بريد مومي بديت نعولك بديت ربينا كنوم دولان ولوم الوحلة كتلت حمت نموية وعلى بلان بدي دوختي تكتي كينا خمت نمك موية بوينا أك كينا خمت نموية بالك يدورون أك بكي أعجب ديالك نبدو سيني كونترا بيه فعالي منافون في الحساب ديال ديال السبب اللي كنت نعطيه مع ممكن كانت بعدين. bëgg dëkk ci seen ab desaan di joxe yooyu yooyu day yàq koor ko day moytu leen ko waaw ay tëdd da nga koy yar waaye xool ba neex la nga teg ca ay jëw ah loolu bokk ci koor waaw koor yi abbaye yi na ko ko lay bàyyi surtout élèves yi nag élèves yi kenn mënu ci ñoom dara ba tey ñoo ngi ci ci weeru koor la ne koo ci wax mu ni nii wala naa su mënta ñàkk kay solo si bu su gàtt ah kii loolu gënu bàyyi wax dëgg yàlla nag gone nag wax dëgg yàlla baleen tuba yi di sol woyof lu xaw rek waaw te làqoog moom nag boo ko solee da moom waaw da ngay kër waxuma sëpp su gàtt ku ñëw koom-koom boo mënee recevoir recevoir boo mënul baal mu dem waaw kon koor du ay caaxaan gone yi ngay koor gi xale fan yi hmm. mais am na lu chaque fois boo ñëwee di euh, message parce que bee passé tamit am na message bu am am na message bu am euh, hmm. fois fooy ni nit ñi du la bàyyi xel mais da da ngay faral di euh, pour seen waa dëkk la waaw xam nga suñu dëkk ñoom ñëpp dañ samay xarit di bi ma ñëw fii nee naa leen bu doon làmb bu doon làmb laa jëm tey ngaay dina bari ay kaar ki biis ak wata yu ndaw ak jakarta may nuyu sama sëfëru jakarta bi Sall Kane et euh, euh, moom it fu ma jëm ndeysaan bu ma ko daan kër mi ñëw papaam ñu euh, naan ko Paul Kane moom it toujours saa yu vidéo bu bees bu ma génnee su ma dajee moom si yoonu Pekes bi takk mu ni ma tey nii ak nii la demee lu tax nga nii ak nii waaw ma koy nuyu bu baax di ko sant di ko ci gërëm waaw célibataire yi dama leen a kaasal fii ci heure yi ndog yi dem rek dama cee gis célibataire bo xamni da joy ba gendu reer ndax da ñew ñu reer mu dess mu ni du lekku dess pourquoi pas mu dem doxi ñew ah duñ ko jox bolam ànce ñu ni ko bol ba ngi ni dara jógu ci da naka da ko tim rek jox mu ni du def loolu keroog sama démb sama kër la mujjee ñëw mbëstani si latir fa mo koy nuyu Wow. ma ni la nag baal jikkoy caab ji nga yore del toogandoog nit ñi ndogandoog nit ñi baal bu ñi ndogu nga jóg takk jóg lenn siis lay nuru waaw célibataire yi jooy ci buri ngoon yi da ngeen di takki soxla waaw leen a yab ak marié yi kan nag wax dëgg yàlla nag dëgg neexut ate wax dëgg ca waaw marié bi yor soxnaam jënd joxe xaalisam financement ay napp ay ay kaas yu baax yooyu ñu bind ci ay loof loof lu ceeb célibataire wuti na wax dëgg yàlla. weer koor ko ci loof. ah ah gone dana génne loof it kaasi loof yi dañ koy génne kon kon jeeg ji ay moom ay doro bi sëtam yeeg yooyu yëpp bokku ci koor kon menacé leen lépp tëj ko ci armoire waaw kon yooyu bokku ci koor.